xam nga nit noo avancer te xamoo sa bopp. il faut nga xam sa histoire. gis nga jàngaluñ xam nga xale yi jàngaluñ leen maa ngi déggoon keroog kii di ko wax xale yi jàngaluñ leen lan moo doon philosophie Sëñ Touba. jàngaluñ leen lan mooy philosophie Cheikh El Hadj Malick jàngaluñ lan mooy philosophie Baye Niass wala El Hadj Abdoulaye jàngaluñ leen ko dama koy wax toujours su waa Kaolack yi dama ne leen baay ñes nañ am luñ xool ci moom. parce que Baye Niass bu daan sax al Kaolack yi la daan signé daawul signé Niass parce que bëgg gum bëgg Kaolack te tey dafa wër àdduna bi yëpp wàcc trace su Kaolack soo demee Nigéria am na ñoo xam ne nii Kaolack lañ gën a xam ci Sénégal Kaolack lañ xam sax xamuñ Sénégal et ça important cest à gis nga gis nga li ma lay wax rek te gis nga ñooñu temps boobu bi ñuy def loolu tubaab dañ di indi problème mm-hmm. Mm-hmm. bàyyi ak sëñ Basiir Mbacké ak sëñ Cheikh Gaynde Fatma mm-hmm. amoon nañ seen vision bu wuute ak vision tubaab bi bien sûr moo taxoon ñu xeex leen ñu xeex leen loolu lépp gis nga rien n'est trop tard su ma ne nee rien n'est mooy àdduna bi jeexawul xëy na li ci des moo gën a bari li li xew. ah mais sa xarit tamit mi ngi signé contrat yi de pétrole bi dem na fer bi dem na. mais pétrole développé wul dara xoolal kay ma wax ma wax la. xam nga président la république du xaritu kenn président la république ñëpp ko yéene jàmm man dama lay wax lu leer président la république su ma sañoon mu réussir ndax Sénégal su ma nee président yàlla bu mu réussir mooy yàlla na Sénégal ah, bon su fi doon am fukki fan sax wala ñaar fukki fan diggante bi nañ ñaan Sénégal bi mais teewul nag bu ma toogee fii ne lii ma gis d'accord ma ci ak moom dëgg la waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dane dañ ko dañ ko daan wax mu ne mhm. ana basharun mislukum mbindeef la xam nga dañ laa wutee yuuxee ilayya mooy yàlla daf may wax mais amul na xataan dafa daan toog su waxee ba nopp mu ne ko li nga wax ci yàlla la jóge mu ne mu ne ko nañ def mu wax ba mu jóge sama xel la jóge mu ne ko nañ ko teg kitaab bi waaw Omar ibn Khattab contredire na yonent bi ba tey mm-hmm. l'islam ñëw ànd ak Omar ibn Khattab mm-hmm. mm-hmm. voilà sëriñ yow de man li ma bëgg a xam mooy sëriñ bu fan la jaar parce que loolu jaaxal na ñu bari sëriñ bu fu mu jaar ci élection yi ba daan fu fu nekk ah fu fu fu fu xuree si ñas nekk ah Diène Farba nekk fa Pape Demba bi tey aw Awa Guèye Nafisatu Diop ah Mout Ndiaye Rahma Souleymane Ndéné ah Awa Guèye Aji Mbergane Khalifa ñas ah ak kii nu mu tudd euh, Seyni Seck ah euh, ak euh, Mukabaru ah ak arabi ñooñu ñëpp nekk fu ñu dajale ah arabi Niass sëriñ nan la def ba mun a rëcc foofu ñëw génn jël mairie bu Kaolack ñee ñee dañ leen a jox ay at defuñ fa dara <laughs> bañ fa deful dara nag man ñu jox ma ma def fa dara ñu am yaakaar ci man surtout amul beneen différence suba bu ma ja xoolal gis nga. 35000 ak 13000 voix dafa sore non dafa. 35000 voix la plus de 35000 ñoom man 13000 voix yi ñu am moo ma jaaxal fu ñu ko jëlee <laughs> waruñ ko woon a am waruñ ko woon a am. waaw ah, déet déet nag tey. ah léegi ah, doole dara dara dara ba mënuñu am léegi bàyyil élection yi ñuy lapp-lappi bàyyil ba ñëw ba xam danañ ko amaat man maa la ko wax. législative waa léegi voilà. waaw waaw euh, léegi est-ce que doole dañuy gën a ñàkkal fay. non euh, du euh, doole xam nga man. oo ma lan nga wax. est que doo leen ànd. non xam nga su dee ànd pour liggéey ñun man wax dëgg yàlla damay wax sincèrement musuma nekk bi may politique bi may politique Kaolack musuma xas état musuma xas Mariama Sarr musuma xas je disais que ñoom lii lañ xam liñ mën lañ def ñun danañ def leneen expliquer Kaolack waaye mu dugg xam nga. dañuy jàpp toujours ba képp rek naa ñaan ma politique mais ma ne leen ñoom mënuñ politique ñun ñoo mën politique te danañ ko def dañ xam ne ñun ñoo ko mën gis nga kii defar lii ba mu lijjanti ba jaay ko ba mu nekk bénéfice mu def ko poosam moo gën a métti foofu convaincre électeur bi <laughs> foofu bokkuñ sax cest à gis nga ñun liñ leen di wax nañ ñu boole ci yëf yi ñu ànd tabax dëkk bi ñun dikkuñ fi ne ñun ndongal daara yi ñun économie ñoo ko war a yor ñun d'accord uñ ko bu ma jógee fi ngeen ne sëriñ bi am defar lu ci yoonam ci politique xam nga ça c'est manque de respect. Mm-hmm. te nee naa la yonent bi sallallahu alayhi wa moo njëkk a nekk politicien yonent bi moo njëkk nekk banquier yonent bi moo njëkk a nekk stratégie commerciale. parce que Khadija daf ko jox liggéey mu dem jaay ko ba mu jeex jox ko xaalisam. kooku nag tabax na l'islam wàcc jaar ci moom yow nga ni ñii daal. xamuñ ni ñuy yoreb dëkk waruñ ko yor nañ dem toog seen yëf dem ci jàkk yi julli waaree def nangam nangam mais ñun ñooy seet. kon loolu moo la mais te yow sëriñ euh, idéologiquement yow ak président Macky Sall bokku leen gis-gis. bokku leen jëm-jëm. parce que léegi da nga wax. non pas surtout. non xaaral non non non bul wax ne bokkuñ jëm-jëm xoolal non xam nga jëm-jëmu politique. non bokkuñ ci dara. Mm-hmm. mais jëm-jëmu defar réew mi. non jëm-jëmu defar réew mi laay wax. Ah, waaw jëm-jëmu euh, vision économique laay wax. Mm. parce que sànq da nga ne. ci mm. bi ngay tàmbalee wax da nga ne réew ñaar moo ci ëpp solo. nga njëkk wax sécurité. waaw après nga tegaat ci. sécurité alimentaire et sécurité. nit ñi di lekk nit ñi di lekk waaw mu nekk sécurité alimentaire. ñaar yooyu tey Sénégal amuñu ci benn te nekkuñu ci yoon bi sax pour am ci dara. loolu mu nekk vision boo xam ne dafa opposé ak yow vision vision bi. waaw loolu loolu nag gis nga loolu réew mu am. Hmm. population bi danañ ko réglé seen bopp loolu maa ngi koy réglé. Oh, non loolu problème bi de. loolu question bi non question mooy seen bopp. non question bi mooy. Ah. nan ngeen mën a wuutee ay gis-gis ba pare. di ànd di ànd di ànd. ndox bàyyi woo Macky Sall daal. ci gàtt ñi nga wooteel gis-gis ngay ànd ak. non man nag du opposé nguur en général nguur yëpp dana am samay xarit lañ. dama ne ki nga wutal gis-gis. ngay <laughs> mhm. ànd yow yaa ak sa soxna wuute ngeen gis-gis. ah déedéet. déedéet xaaral dana am loo xam ne da ngeen ci werante yéen ñaar mënu la a respecté naw la ngeen ànde léeg-léeg wax dara mu ne la di ma ko nii léeg-léeg nga ne lii gisewuma ko nii di teewul yéen a ngi ànd waaw loolu ay détail la mais li gën a fondamental ñu ah. xam nga mun nañu mun a mën a ceeb bi weex moo ma gën a loon ceeb bu xonq loolu ay détail la te bu ah. ñettee nga génn ko kër gi wala très bien mais dama la bëgg maara raw boobu mooy fondamental vision boobu na ngeen bokkul yéen ñaar xam nga tey dama ne xam nga tey ma wax la lan la. waaw man mën naa bañ a am euh, kii c'est-à-dire euh, collaboration mën naa am xaritoo ak opposant waaye mënuma am collaboration parce que il gère mais est-ce que ragaloo tey jii gars organiser ay représailles moo tax nga. des si quoi quoi. Euh, ragaloo gars yi ma xoñal ay. ay représailles maanaam ñu lay buntu xatal ci say euh, say entreprise mais bu doon loolu li ma def moo gën a risqué hmm. man li ma def kay moo gën a risqué loolu loolu la ñuy wax risque boobu noonu parce que da nga jël benn da nga naan ma da nga lu tax nga jël risque boobu da nga jël mooy da nga campagne benn affaire mooy que ni yow soxla woo dara kaw rek nga soxla waaw ñu dégg la bërki démb ci euh, sunu ay confrères ngay ngay ngay projeté wu ci élection législative am sa ñi nga xam ne ñoom nga àndaloon ñoom ñu ne ñoom ils vont rester dans la coalition Benno Bokk Yaakaar mën nañ ci citer même le président waa xam nga départemental ak ñeneen ñoo xam ne fan yi moom conférence de presse yi comme tous les male Kaolack ku di wax euh, ñoom dañuy dem Benno Bokk Yaakaar parce que yow li nga leen promettre oon que ni doo dem élection da nga ko wàcc muy la nga xam nga am na loo xam ne dinaa tooñ seen benn confrère xam nga hmm. yéen fële da ngeen fa am Dakar Actu ku bëgg a wax ci sëriñ boobu la da ngay dem fay ko mu bind. <laughs> da ngay damay tooñ nag loolu am wax leen ko man maa ko wax fi loolu la CNRA war di xool article boo gis la dañ ko fay mu bind loolu lay def. te am nga firnde bi. bu leer naññi na ko weddi Serigne Diagne moom na ko weddi na ko weddi wax naa ko ba tey. Mm. na ko weddi lay liggéey bon soo xoolee lépp moom moo koy amplifier dañuy dem fay ko mu bind loolu lay liggéey rek kaw la voilà omel wax nañ ko wax ba noppi mu dëgër bopp na continuer ñun tamit fu ñu toogee danañ ko wax ne loolu ngay liggéey parce journalisme da ngay war di wut information kaay mi jox la exemple. génn na information dama la njëkk a wax naa commencé ci fële Ahmed Ben Saloum man seetiwuma ko moo ñëw bi ma déposé sama caution yëpp nopp mu ne ma déposé naa sama caution dama bëgg ñëw ànd ak yow mais lan la dañoo bëgg ànd defar kaw la ànd ànd nawle benn Bokk Yaakaar laa bokkoon mais góobu ma leen du ma ànd ak ñoom am naa fa lu ma naqare damay ànd ak yow moom ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen man nañ quinze wala vingt ñoo ma seet si seet suma ci kenn maa ngi dégg ay gars am seet suma ci kenn ñoo ñëw parce que man j'avais fait confiance à ce que j'ai ah bi ñëwee alhamdulilah ñoo bokk def kaw def jël département ñu jël kii mënoon naa jël keneen teg fa ndax maa doon décider demal toppatoo département man je m'occupe de Kaolack dem na ci département am na fi 14000 voix man ma am 35000 uniquement pour Kaolack bu doon tey département mooy wote du gagné du nekk chef kii département. Mm-hmm. ah c'est que bu gagné ba noppi ne day delluwaat Benno Bokk Yaakaar qu'est-ce que lu ma ci man parce que moom mooy président conseil départemental. xëy na mënul def lu dul loolu. parce que bokkuñ ma moom. kooku moom est-ce que yéen politiciens yi tam ah. côté boobu doo leen daw yooyu. noo xam nga ni est-ce naxu ko sax. non non ñoom complot wuñ man naxuñ na xam nga bu demee ci nax waa Kaolack lañ nax bu fekkee Kaolack waaye dañoo voté woon. ci nekku ci lim doon wax. bu paree mu delluwaan man naxu ma man naxu ma. man je le croyais je crois à ça loolu la. Mm-hmm. man naxuma wax dëgg yàlla ànd. mosul wax ne génn benn bokk yaakaar aussi mu leer. parce que ñëw na fi sax ma ne ñëw na fi sax édition du soir mais mosul wax ne du membre benn bokk yaakaar. waaw d' accord waaye. non ba ba ba fi ñëw na. benn bokk yaakaar xaaral xaaral ma wax la boobu ñu koy. benn bokk yaakaar xam nga loolu sax bëgguma ci yàq benn bokk yaakaar amoon na candidat. Mm-hmm. su génnul benn bokk yaakaar na dem jàppale candidat benn bokk yaakaar kooku amuñ ci benn problème. Mm-hmm. amuñu ci même tey jii bu continuer jàmbale bi amuñ ci problème ñun amuñu parce que xam nga ki daan woote mi ngi kartam ñu ngi jëm législative kooku bu gëmee ne Benno Bokk Yaakaar la bëgg waa Benno Bokk Yaakaar ñu représenté ko ci assemblée parce que il faut que ñu ja ñu xam man mi sax daf ma réeroon dañ naan député élection nationale déedéet député da ngay dem ci assemblée nationale pour taxawal fa sa gox. liste départementale yi mooy représenté cent et quelques députés nationaux yi cinquante la. kon l' élection c'est toujours locale c'est pas man nag bi ma paree. dama ne woon man sëriñ boobu lii dama ci dugg pour liggéey man naa bàyyi politique bi consacré wu ci Kaolack maa ko wax toog naa ak les plus hautes président ma wax ko. wax nga ko président moom waxuma ne waxuma ne bu dem man maa ko wax. mais da nga ko ko promettre ba mu la ba la may ma àggal rek may ma àggal rek mm. mm. may ma àggal rek. gis nga dafa am ñaar yoo xam nit ñi dañ koy jaawale. gis nga ma jox la ko ci lu gën a simple. boo gisee soxna soxna su baax ngeen bëggante ngeen di waxtaan di waxtaan di waxtaan ba sëy bi amagul nga toog ba mu yàgg nga ne ko ah soxna si daal mënut mënatu ñëw sëy kooku dara newu ci. Hmm. waaye bu ngeen demee ba fas sëy bi ba contrat am nag yombul rek nga xëy su ma ne ah may nañ jàkk ja ba pare demal ma dem mënut a nekk. Hmm. loolu la ñuy wax kóllëre mooy accord yàlla nee na wa awfu bil ahdi inna al ahda soo amee accord mais bee amul accord man accord bi ma man maa ko jël sa ba bëggu bopp mais ma yaakaar ne ñoom seen bopp. dañoo war bi loolu amee ak ngañaay bi ñu ne ah Serigne Boubacar gagné na respecté Kaolack waaye ñëw ànd ak man liggéey man loolu lay xaar waaye xam nga ban dans ban problème añ mooy ñoom di fait que dañoo nekkoon liste bële jàlluñu mais seen onze conseils yi am ci man wax dëgg yàlla au moins ñoom benn problème ñi ngi ànd di liggéey mais ñoom nag ñu bëgg jël affaire bi def ko vengeance bi ma nee du dem rek ñu naan quand le chat la les les souris dansent du lool. du lool lañ ko. bi ma nee du dem rek ñu ne nañ ci profité sëriñ bu demul nañ dem pour kii bu buñ paree nag ne ko yow gagné woo woon ma ne ah sama gars yi woo ma ne ma sëriñ yaa ngi xam li ngay def ma ne lan la ñu ne ma ñii boo leen bàyyee. te ñoom ñoo tax ci yàq gi ñu doon yàq président ñoo na fu bëgg a defar port ba ñu yàq ko. indi matériel ba foofu ñu jël fexe ba yaakaar ne port pour sëriñ bu port dama ci am ñaar dama koy gérer rek. Mhm. président ñëw na fa pour euh, bëgg a defar marché ba ñu mm. nekk ci seen biir di xiiroo ko ñaayoo ko gis nga li nga mm. tudd lépp xiiroo ñaayoo lañ fa nekk ci biir kaw la yaakaar nga ne ñun danañ dem ba xiiroo ñaayoo boobu ñu ñëw bale leen ñoom ñëpp di leen mayaat doole pour ñu ñëwaat xiiroo ak ñaayoo ci suñ biir mm. duñ ko def loolu moo tax ma ne lii dafa jar jihaad te jar na ko mais ni nga boot dafa bari ah? waa Pastef waa waa Benno ku nekk ngi ci sa biir coalition ñi nga xam ne retrouvé wu ñu seen bopp yépp ci côté bële ñu ci bari dañoo ñëw ci yéen parce que même waa Pastef sax am na ci ñoo xam ne yow lañu àndaloon a porter parce que gisoon nañ sa vision est-ce que loolu du nekk am solo mhm. waa Pastef ñi ngi ci man ñi ngi man mais ba ma waxee ne déw ma dañoo dellu seen parti mais déggu ñu def conférence ne dem nañ seen parti mais ñii vingt dix parti la ñaari nit ñaari kii ko am nañ suñ dikkoon tey ne vraiment dama koy wax si moom frère Bengelloune su dikkoon fay ne KMB de delluwaat na delluwaat na. Euh, Benno Bokk Yaakaar mais du am problème. Mm-hmm. mais pourquoi dire que ànd nawle tas nañ dellu nañ ànd waat c'est différent yow am nga KMB. Mm-hmm. noonu la tudd noonu la bosom tudd. keneen ki am na beneen xaw ma nu mu tudd sax wax dëgg yàlla xaw ma nu mu tudd xam naa ko Daniel Sow la ma nu mu tudd. Daniel waaw wax dëgg yàlla nu mu tudd Daniel boobu sax. waaw xaw ma nu mu tudd. Mm-hmm. dikkoon ne ñun kat delloo nañ benn bokk yaakaar tooñ amul. mais soo dikkee comme si doo an li dafa tas di ko wax baaxul mm-hmm. da ngay indi ay mbir mi te 17 personnes ya nga ñu ngi ci kon man ñu dem Benno Bokk Yaakaar waa Pastef dellu Pastef waa PDS dellu uma ci problème parce que man damaa jàpp ne ñooñu yoru woon sama électorat mm-hmm. xam nga ngeen ñor la mooy nit bii jóg tëj këram dem rang fa wote kooku moo yor sama électorat te kooku laay xool kon moo tax man kaw Kaolack moo war a jox exemple naan la grand électeur waxu caaxaan la ñun boo jëloon tey Kaolack ñu naan crème mu Kaolack nanga mën na ñoo ñëpp fële lañ faroon